waxtaanu suba waxtaanu suba waxtaanu suba waxtaanu jataay la bu leen rajo leeral fm bu Louga 104.6 di baaxe suba su ne di ci dalal kenn ci boroom xam lislaam yi muy waxtaan ci tomb yu fasantikoo yoo xam ne dina jëriñ jaam bi ci bëccëgam bi yépp saa yoo yeewoo war nga am lu lay gindi di la leeralal sa yoonu jëm ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ànd leen ak rajo leeral fm 104.6 suba bu ne bu 7 jotee maanaam juróom ñaari waxtu ci suba ci jataay bi ñuy woowee waxtaanu suba defal waxtaanu suba fii leeral fm muy sab yóbbal bis bu ne bis bu ne wa ila alxisaabi fahhabi alxashru haqqun faxshai qabla almamaati fa innahu yawmu rrujuuci litarjaci bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi bii mooy waxtaanu fukkeel bi ak juróom benn ci waxtaan nii nga xam ne moom lañ jagleel ndaka la def ba doon xaritu borom bi tabaraka wa taala yàlla nañ yàlla def ñun ñëpp ñu bokk ci ay xaritam ñu tolloon ci ne bëgg a yàlla na nga xaritoog téeréem karim nga xam ne moom mooy waxi yàlla yàlla ci boppam moo ko wax alquraan yi waxi yàlla la amul dara nag lu gën a tedd waxi yàlla ndax aw melokaan la ci borom bi tabaraka wa taala alquraan jooju ñu waxoon ci bind bi weesu ne ki gën ci nit ñi mooy ki ko jàng ba di ko jàngale ñu leeraloon it xadis yi wax ne ñi nga xam ne ñooy waa alquran te mooy ña koy jàng te di ko jëfe ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy ñooñi yàlla ñooy ñi ko gën a jege ñooy ñi nga xam ne ñoom la gën a bëgg alquran heure bi nga yëkkatee sa doom ngir mu jàngi ko moo xam ca daara ja la moo xam ca école bala moo xam ci kër gi sax ndax jàngum alquran tënkuwul rek ci ne sa doom fu mu jaar dem internat ba wala fu mu jaar dem ca école ba pour jàngi ko fa yi waroon nañ koo defe no xam ne jàkka ju ci ne nit ñi dañ fay mën a jànge alquran jàkka ju ci ne waa quartier bi waroon nañuy jàppalante rawatina ñi am alal ci ñoom ba teg ci jàkka ju ci ne ab jàngalekat boo xam ne bu heure jotee mu ñëw toog di jàngalu doomi jullit ñi te aka yomb tey dangay dem ci réew moo xam ne ñëw na nga dugg ci jàkkalut lu dul ne danga fa fekk ab xalqa ñuy jàng maanaam jataayu alquran nga gis jàngalekat ba toog di jàngal doomi jullit ñi nga dugg nag ci am réew moo xam ne nga dem ci réew moo xam ne daanaka loolu doo ko gis jàkka yi nit ñi dañuy julli rek génn dem seen yoon waaye nit ku toog di jàngale alxuraan foofu ba doomi jullit ñi di mën a ñëw di jàng ci jàkka ji loolu daanaka doo ko gis la waral réew male moom mel noona mooy nit ñi ñooy jàppalante ba mën a jël ay jàngalekat di leen teg ci yi ñuy jàngal nit ñi masalan tey waa quartier bi mënoon nañoo def ab association boo xam ne dañuy fexe bay dajale weeru jot dara ci xaalis loole ñuy dajale moom la ñuy ja jàngalekat boo xam ne mooy ñëw ci jàkka ji di fa jàngal doomi jullit ñi xam ne ñuy jàng ñëpp mën nañoo bañ a fay dara sax wala bu dee ne loolu mënuñu ko ñu indi jàngalekat boo xam ne dañuy wax ni ñëw leen indi seeni doom ku ñëw weeru jot am loo fay waaye loolu lu ñu war a dundal la fexe ba jàkka yi jàngum alquran mi di fa takkarnaase ba doomu jullit ñi di mën a jàng loolu mooy gën a mën a yaatal mbir yi ndikki noonu école yi ndikki noonu daara yi daara yi it day laaj nit ñi jàpp ci bu baax ndax bu dee neen li ñuy tudde internat la mooy nit ki dangay indi doomam bàyyi doom ci mu dëkk ndax jàng ma mën a gën a gaaw loolu dafay laaj ay financement kii indi doomam bu ci jàppul bu baax rek day daal di mujj diis lool ci kiy jàngale parce que moom kon mooy mujj mooy toog di jàngale waaye mooy financé waat ci gone gi te loolu na day metti lool looloo tax ku fay dugal sa doom war ngaa bàyyi xel bu baax loolu bala nga war warloon ñoom nga mën caa taxaw waaye doomi jullit ñi ñu baree baree bari ci ñoom dañuy bëgg a jàng te seeni waajur amuñu doole jooju rawatina internat yooyu lañ fay fayu léeg-léeg day xaw a bari ndax financement yaa ko laaj bu ko defee doomi jullit ñu baree bare bari toog duñ mën a dem ci daara yooyu jàngi te fekk ak ñu ko aaje woo seeni waajur it ak ñu ko aaje woo waaye mënuñ ko boobaa jullit ñi dañoo war a jàppalante ci seen biir duñ wax suñ daara bi jëlal ñi jàngal leen te duñ fayu parce que loolu attanu ko moom daara bi yërul dara attanu te bugg ko jëloon it daaraam day tëj parce que du mën a dem lan lay fayee jàngalekatam lan la lay ni dundale yoru ko waaye nit ñi seen biir ñoo war a jàppalante ndaka ñu war a mën a taxawal ay association walla ñu dem ci association yiñ ñu taxawal ba pare masalan am na bu tudd euh, MED ab association la boo xam ne pour jàppale daara yeeg yooyu ko tax a jóg mu dem bokk ci bu mel noonu wala moom sax bu bokkul ci ab association moom ci boppam mën naa fay bay fayal keneen mu ñëw ne ah suñ daara bi day man daal gàddul naa la ab donga heure bu weer dee léegi kon seetal ci ñi ñàkk nga jël ci kenn kooku man maa koy fayal moo xam ki ñuy jël ab jirim la moo xam du ab jirim bu ko defee sëñ daara bi daal di jël ab donka ci ñi ñàkk ak ñoo xam ne mënuñoo fay léegi kële moo koy fayal par yu mel noonu dañ ko war a dundal bu ko defee loolu day jàppale nit ñi bu baax ba ñëpp mën a jàng ku bëgg a jàng alquran nga mën koo jàng même bu sa boo néewee doole même boo néewee doole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ki nga xam ne moo jàng alquran yowmal qiyaam xoolal yàlla ni muy terale rek ay waajuram lii ku ko dégg da nga fexe ba doo ko xañ sa bopp yow waajur wi nee na yowmal qiyaam bu ko bu ëllëgee yowmal qiyaam ki jàng alquran day ñëw alquran daal di taxaw ne yow borom bi wa takkal ko maanaam teeral teeralal kii ci takkal ko ay takkaay nee na ñu daad koy solal mbaxanam teraanga mbaxana lay doon moo xam ne yàllaa xam na ndaka lay mel nee na alxuraan daal di ne yow borom bi dolli ko nee na ñu daal koy solal takkaayu karaama ay takkaay la yoo xam ne yàlla xam ne ndaka la nar nee na alxuraan daal na yow borom bi gërëm ko nee na borom bi daal koy gërëm nee na ñu daal di wax kooku nga xam ne moo doon jàng alxuraan ne ko nag del jàng te yéeg ci beneen xadis bi mu ne ko del jàng te yéeg di jàng comme na nga daan jàng ci àdduna sa wàccuwaay ci àjjana mooy dernier aaya bi ngay jàng dernier aaya bi ngay jàng mooy sa wàccuwaay ci àdduna kon yow mi foofu sa doom dugal ci ci ci daara ja muy jàngi wala muy dem ci école ba wala ci biir kër gi wala feneen fu wala yow sa bopp yaay toog di ko jàngal alxuraan bu ëllëgee fii lay mujjeg yow eh, fii lay mujjeg sa doom jooju alxuraan mooy taxaw di wax fi borom bi tabaraka wa taala pour mu décorer sa doom ñu koy solal mbaxana mooma di ko solal ay takkaay ba pare borom bi daal di koy gërëm ba pare nag ñu ne ko accu nag àjjanaa ngoogu del yéeg day di jàng di yéeg di jàng di yéeg di jàng di jàng di di jàng di yéeg fam yam rek foofaay këram kon bu demee ba jàng alxuraan ji yépp ba mu jeex foofu ay këram mooy kon day dem ba fa gën a kawe loolu nag mooy charte mooy mu mu ko doon jëfe kon ni ñuy yare ni ñuy jàngale gone yi alxuraan nañ leen koy yare ci ñu koy jëfe parce que buñ ko dul jëfe alxuraan du du leen du leen leen di suufeel jëfe alxuraan jëfe la ay ndigal la ak tere kon keroog da nga gis waajur wa nga xam ne daa góorgóorlu woon ci doomam fexe ba dugal ko ca daara ja wala ca al école ba wala fan ba muy mën a mokkal alxuraan ak ka nga xam ne moom yooye moom dane woon du ko def parce que yii da koy tardeel nga gis kii ne woon day tardeel doomam xam ne nag nag ndekete wóote nag moom moo doon tardeel doomam bu gisee kële moom alxuraan di ko terele nii yàlla di ko takkal ay takkaay yii di ko mbaxana yii ci kanam mbindeef yépp ñu koy teral teral gu mel nii ba pare nag ñu naan ko duggal àjjana di yéeg yow nag sa doom ñëw di xaar ñu solal ko mbaxana fu muy jëlee mbaxana di xaar ñu takkal koy takkaay fu mu koy jëlee dugg àjjana jot mu bëgg a yéeg ne day jàng ana lu mokkaloon dara fu muy dem boobaa dana la gestu ne la baay lii yaa ma ko xañ dëgg la ci àdduna joxoon nga ma nangam ak nangam ak nangam waaye ndeke xañ nga ma li gën a ëpp tey xoolal karaama bii nga ma xañ diw de moom joxoon na ko doomam doomam mi ngi nii amoon na àdduna comme man ndax alxuraan ji yàqalu ko woon dara jàng na ko téewul dem jàng yeneen yi ci des yëpp ba am ca la ma amoon waaye tey mu ngi nii alxuraanam tax na mu ngi yëg di dem man nag maa ngi toog nii yow baay lii yaa ma ko teg waaye yow keroog bàyyi ba yow sa yaay njëkk xam ne ndeke perte nga parce que yow dañ lay décorer bu fekkee ne sa doom sa doom dafa dafa doon jàng alquran moo tax ñëw na it ci ab xadis ne ki nga xam ne maanaam moom euh, doomam dafa jël alquran moom it dañ koy dañ koy solal mu wax ne lii ci lan laa ko jële ñu ne ko ci sa doom ja doon jàng alquran ci nga ko jële ci sa doom ja jàng alquran ci nga ko jële kon boobaa nga gis ña nga xam ne a ñoo nga doon góorgóorlu di dugal seeni doom ñuy jàng ñoom ñépp ñu di leen solal ay takkaay yow nag solaluñ la fekke yaa tooñ sa bopp amoo doom jàng alquran alquran yi mu ca waaye dafay ràmm it ki nga xam ne moo koy jàng yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na iqra'u fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashaabihi nee na leen alquran dafay ràmm ki nga xam ne moo koy jàng ba léegi nga nara dugg ci mbugal dafa booba fekk li la ko teg mooy bañu jëfe alquran janga doon jàng ñëw daal lay ràmm ba génnee la fa xoolal boobu jafe-jafe nga jàpp ne moom tey moom dugg nga alquran ñëw daal la cay génne ci jàng gi nga ko doon jàng kon loolu bokk na ci lii tax nit ki mu mucc muy mu doon jàng alquran yonent bi sallallahu alayhi wax ne woor ak ram ak ak ak alquran dañuy ràmmu jaam bi nee woor day wax ne a ah, borom bi man de maa taxoon lekkatul naanatul ci bëccëg gi kon nag ma ci alxuraan ne ah borom bi kii de maa taxoon nelawatul la guddi gi ndax ci guddi gi da jàng alxuraan kon nag ràmm ma ci nee na ñu daal di koy ràmm maanaam ñaar ñii moom buñ taxawee yow jàmbi danga mucc incha allah ñu daal di lay ràmm ci loolu kon di bari looy woor ak di bari looy jàng alxuraan bokk na ci li tax nga mën a mucc bu ëllëgee mbokk yi nañ gën a góorgóorluwaat ci téere bi yàlla bi bu dee ne dañoo bëgg xaritoog yàlla bu fekkee ne bëgg yàlla dafa sori ci suñu xol bëgg téeréem bi day sori ci suñu xol danañu jaral lu ne waaye mënuñoo woote woone dañoo bëgg yàlla ba pare sori téeréem duñ ko jàng duñ ko jëfe duñ ko ittewu nañ gën a lu ci jàng ko gën a góorgóorlu ci jëfe ko gën a lu ci xam ko subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk لله في اليوم الذي جمع